dembu délégation dafa demoon seti ay kilifa préfet yek ñeneen ni diré diriger ko par suñu directeur de campagne bi Cheikh Diaw and ak équipe tekki bi ñom bay Ngom ak ñom ñep ñu dem laccé saytu lan mo nek ci problème carte yi biñu laccé lolu ñu xamal nañu né sur les 80 manam carte yi nga xamné manam maanaam nañ ko distribuer

5% électorat bu avez distribué ko amna am influence sur le vote. kon nous ñu leen di ñaan ñu distribuer loolu noonu nu en un mois de distribution 800, mom un mois de distribution Vous avez un mooy ña ay ñaar par euh, par par jour doyna na ci carte on a des preuves

nous interpeller le DAF, la direction des élections, la commission de distribution des cartes, pour nous prendre ses responsabilités. Trop, c'est trop.